n'a pas de privilèges acquis donc damay jàpp ni le qui wax ci jugé parce que connaissant Farbangom, Bilal bu waxee euh, le coordonnateur de PASTEF bu nekkoon Agnam Suel kan moi que moi mu jël les fichiers de qui de daw ak comment càcc ah. Agnam Agnam. Il Matam. Hein. yaa ngi fàttaliku histoire bob le coordonnateur de PASTEF si ñu geroon à Matam cak-cak ñu gis ko pale mu photo Macky Sall mm, mm. Mm. kan la ñu man waaw kan nous kan Farba il a la politique des billets Nous loolu la gëm le Benno Bokk la cest politique la 1 milliard deux cent Le la la politique des billets trahiral Diou, ma fay la proposer le 300 millions nga le diw ñoom ci loolu lañu loolu mooy seen pratique ah loolu la ñu xam alo loolu la ñu yàgg a doxee waa Benno Bokk Yaakaar donc bu buñ la tuumalee lu buñ leen tuumalee lu mel ni <laughs> du neex a weddi parce que dañoo def lu nekk fag ñu ñu gis ko en dehors avant avant Bilal Diatta avant Bilal jaata ñaata sénégalais ñoo fi taxaw ne lan man dañu maa bëggoon ger ma bañ non avant Bilal Diatta nañu waxante la la la vérité nañu nañu waxante dëgg. ñaata nit ñoo fi taxoon jamono boobu ñu ne man dañ maa proposé xaalis som pour man enfoncer Sonko ci affaire Adji Sarr bi ñaata nit ñoo fi taxaw di témoigner lu mel noonu dañ maa proposé xaalis ay mallette xaalis pour ma enfoncer Sonko ma bañ parce que sama gor mayu ko dañ maa proposé ay xaalis pour ma trahir Sonko ma wax lii ci Sonko hmm. ma bañ ñaata nit ñoo témoigner lu balaa Bilal jaata tout récemment ni mais lolu mo am c'est la réalité parce que waa Benno Bokk Yaakaar loolu c'est une politique. politique des billets. la politique des billets ay politique sos trahison transhumance parce que Macky Sall loolu la xam ah, transhumance da nga am dossier da ngay transhumer ñeu sama ginaaw wala ma activer sa dossier ñu tëj la. nga hmm. gis gars yi nekkoon PDS yépp daw ñom Awa Ndiaye borom kuddu yi ak cumaar yi mais loolu la. ñoom Awa Ndiaye borom kudduy ci moir yi mu daw ñu daw lakkatu si ginnaaw Macky Sall parce que bëgguñu ñu ñu activer seen dossier Macky Sall loolu la xam da ñëw ci man ma suul la wa ilaa ngay wax ci man ma tëj la bu fekkee am nga dossier fii yow yaay choisir lu ñuy ne yow yaay choisir ñoom ñu choisir daw ci Macky Sall ginnaaw Macky Sall mu làkk leen duma yeneen ñi. da ngay gis dañuy gis ànd ba rafet sax ñu ñëw ci yow ne la ah ñu gis ànd fallu ak arfan ja dama ah ba yow doo bàyyi kii doo bàyyi fallu ane ah de man fallu de mënuma ko bàyyi parce que sama xarit la sama xarit ba bëccëg sama xaritu guddi ñu ne ma non ba grand jow ñëwal ci ñun bàyyi fallu ñëwal ñu jox la trois cent millions hmm. jox la kat kat jox la kër nga ñëw ci ñun ay privilège waaw jox la ay privilège boo bëggee sa poste ñu jox la ko am na ku ñëw am am mu am ku ñëw ci yow ci yow sax guddi te bu ñu ñëw guddi la ñu ñëw jël taxi ankagule ñëw toog. nga ne si comme ni ko Idy defee woon ci oui ñu ñëw ne la yow laa soxla woon président moo ne dafa la bëgg a bëgg naa la yóbbu ci président bu fekkee d'accord nga noonu la ñuy géré nit ñi même ba ci ñun journalistes yi. tey man en tant que journaliste am na yoo xam te dama ko wax fii su ma ko waxee fii nii ñu ñuy seetaan dañuy ne est-ce que ah kon lii am na. kon lii xewoon cent dafa bëri Arfan. dañuy ne kon lii Arfan lu muy wax ni xewoon na ci mm-hmm. journaliste yi donc moo tax man damay noppi ci wàllum journal ci ci journaliste yi ñuy ger donc dama lay wax ñoom bu ñuy ger loolu la ñuy ñëwee proposer la ay xaalis boo xam te munoo ko bañ. amaana peut-être yow boo boo desetewu boo desewuloon ngor sa parents yi bu ñu amulee éducation bu ñu def ci yow. yow dañ lay keuf facilement ñu keuf la. Mm. donc man Bilal diata lu mu wax man betuma lu ñu gis la ci leur gestion dañoo yàgg ger ay nit di leen trahirloo ay nit da ngay trahir diw ñu jox la xaalis jox la eh, oto jox la kër jox la fonction nga liggéey boo bëggee voyager sax di nga voyager partout parce que passeport diplomatique lañ lay jox c'était tellement facile ci ñoom pour ñu jox la passeport diplomatique c'est comme midi ce n'est même pas midi à 14 h dañuy ñëw rek ñu na la waaw légui président nee da ngay ñëw ci mom ñu jox la ligne même bo bëggee sa passeport diplomatique dañ la koy jox. Hmm. parce que dañ ko doon distribuer comme ay mouchoir. moo suñu passeport diplomatique bi ni foku ñu xoolaat ko valeur bi wàññeeku na Macky Sall daf ko doon distribuer comme ay mouchoir ni comme ni ay tandarma tandarma nii koor nga ñëw ni ne daj woor nga waaw mais xam nga tàndarma bu ñu koy distribuer ci weeru koor bu ñuy gisee laaj kan moo woor ak kan moo woorul kaay leen ndogu kaay leen ndogu ndogu baa ngi nii mm. même boo woorulee sa boo ñëwee ñu jox la kaas ak mburu ak tàndarma ñu ne la ndogul mm. yàlla moo xam ndax woor nga wala wooroo Macky Sall noonu la doon distribuer suñu passeport diplomatique ah. ci ay ger ñi ger ay nit ñoo passeport diplomatique baa ngi nii yow ak sa say soxna ko foo bëgg a dem ci demal mais ñëwal ci Benno Bokk Yaakaar kaay ñu gérer yàqal diw saagal diw warumalu sutural diw da ngay gis ni dañuy gis na nit ku baax sax nak di liggéey ñu fay nit ne ko demal nga saaga diw demal nga traîner diw dans la boue waxal ko lu ñaaw mais c'était ça ñoom seen politique noonu la moo tax ñuy gis fii ci jamono Macky Sall saagakat yi dañoo bëri tellement que. da ngay dañuy tok ci internet bi di saga di saga di saga di saga di def ay vidéo amateur di monter ay nit. di nan diw lañu monter ni ni ni ni mais mais tout le temps le nom de Farba Ngom mooy exactement. oui euh, tout le temps le nom de Farba Farba. oui parce que nit ñi ñoko xamalé xamalee loolu. mo moo wane lu ne fan nit ñi gis ko. Farba Ngom oui. Farba ay audio mu fiy teew ay image Farba fiy teew man damay junj rek sénégalais xam nañu li may wax. Mm. ndax audio Farba yi fuyte wu fii ndax gisuñu ci ay vidéo ay image Farba Ngom di joxe xaalis. mais loolu nee na loolu dafay def dañuy génn dafay joxe far ba lu baax la Farba ci lan la doon liggéey ba am xaalis ba muy joxe. mais ci état bi doon liggéey. boo xamulee say démb ñi ñi xam nañu say démb. nekk na maire di nekk na DG. non mais sëñ gi may ma nga may naan ay maire yow maire Agnam Suel dafa am ñaata lu muy fay ñaata lay bu amé trois doy na maire yi ci ville yi ay maire Agnam Suel bu amé cent cinquante ah nga may député en dehors de ça lan la nek courtier parce que Farba ñom ñoy délai. Farba dafa ci délai. quatre Macky Sall yi ministre nekul directeur général ces postes stratégiques yo xamante amana amaana sax. da ngay am budget pour yow. mais farga Farba amul ces postes là. mais mais il est chef propagande bu. ben Bokk yakar non mais il faut. arrêter non si on lañ ko fal. <laughs> il faut arrêter ce hmm. poste là date de quand chef propagande. ce poste-là, c'est un poste qui date de, de enfin, massification, <laughs> de, il faut arrêter quand même. Il faut arrêter. fi l'union wara défar, l'union wara rectifier de Il faut que nous rectifions l'eau ñom ñëpp war nañu jaar trésor public fay xaliss bi mu jeex tak alors c'est clair Arfan. ñaata scandale la ñu révélé woon fi ces personnes là sen doom yi ñi japp avec de l'argent di contribuable sénégalais ay saaku xaliss ci ay doomu jàmbur parce que sen papa yi ay xarit Macky Sall lañu sen papa yi ay ministre lañu wala sen papa yi ay courtier Macky Sall lañu ay lenen ak lenen sen doom yi ñu jàppalante ay njombe bu ne ay bu ne seen doom yi def fii froisse daal di ci jamono parce que doomu ministre kenn du ko même bu ko jàppee ak drogue kenn du ko tëj ministre même ko ci ay escroquerie kenn du ko ci c'était comme ça doomu ministre kenn du même bu ko jàppee de liquide de l'argent liquide ci otoom kenn du ko hmm c'était ça c'était ça le système système bi moi nekk nii moo tax ñu bëri quand on parle du système nga ne lan système bi en fait lii le système bi. alors c'est clair Alpha. borom daraja yi ils ne méritent pas la prison Ken dou len tej. doomu baadoola yi la ñuy tëj da ngay deug sax police wala marine nationale wala douane intercepter na euh, cocaïne ay drogue quantité dañ nañ ne japp nañ japp nañu drogue ci lañuy yema ah les médias ont révéler oui la gendarmerie ah, a saisi a saisi une quantité de tonnes de de de drogue tel tel tel la dañu ne gis nañu ku connu ak diw duñu d'où révéler. mais le ay domaine sensible révéler Le le sensible la lan est le sensible drogue société un transporteur de drogue nga ne drogue nga japp quantité ba pare mom nga lakko nga ne do révéler diw la wala diw ñoo laalé ci sont nga la presse c'est ce qui nous on la presse la presse nous révélé la gendarmerie a saisi une quantité de 5 tonnes Voilà 100 et quelques tonnes de de drogue wala de cannabis de yamba <laughs> mais duñu wax diw ak diw ci y a té ana drogue bobu fa la dem ko taal sénégalais gis ko wala fan lañ ko yobbu do ko ñu taal c'est clair euh, c'est clair euh, Miro ki n'a xam que moo Bilal diat qui ki nga que moo justement Farba Ngom euh, ak Marième